moom de daa am ay forme yoo xam ne yu bokkut la am na ci yoo xam ne am na ay loxo yu jot sax ba ak ci tikki jaram am ci yoo xam ne am na ay loxo yu ñëw ba ca wetu conco ya am ci yoo xam ne yooyu ngàll la yoo xam ne rek day gàllu ci loos wi wàcc boobu nag euh, kenn nattablewul ne moom borom xam-xam yëpp xam nañ ne mënta julli nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nag kenn du julli te fekk ay waggam dara nekku ca su fekkee da koy jullee daal faaw bu jël dara moom gàccoo ko moo kaala gu yaatu lay jël làmboo ko wala ak làmbaay wala lu mën a jëfandikoo waaye waggi keese moom di su ko bàyyi noonu ah su fekkee nag dafa doon xeetu sous-vêtement boo xam ne day nekk ci conce ya wala mu wàcc ba ci tikki jare yi la chaque ne lu mel noonu moom mën naa julli donte rek li gën mooy sol loo xam ne mbubb la ñëpp xam nañ ne lii moo gën a jot eh, mu jullee ko loolu mooy gën a mat waaye bu fekkee lu doy rek li ñuy xool li xas muur ba àgg ci conco yi moom kooka muur na wagg ya su boobaa julli ga moom day daal di baax naam هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى